dikkati na lu waay dëgër dëgër jooy la soleil yéen a kaay naan juróom-ñaari téeméeri milliards day la sàll ngaari lam buur gede bëgg a def Kaffrine tribune yéen a kaay naan koon déet dikk waa Kaffrine le soleil naan koon ma ñëw rek programme d'investissement prioritaire jàpp moom sàll ne Kaffrine yéen a njëkk séddu ci sphère administrative mu war a jëlee capital bu nduku maan ba fu sori jaagar jaagar rek moom ñëw daal di teg nag ci modernisation lycée d'excellence bi ko dalloo premier ministre bu Sao Tomé ak principe ñëw di xool defal visio président Macky Sall naan ko Sall kay yaa mën tribune yéene kaay ko déet yéen ngeen di këf gémmiñu sàmb te xamu leen lu muy walis président Macky Sall ma nga ca tournée dëgg la milliards yi nee nu mi ngi taw dëgg la waaye ay digee la de <laughs> Sall day man la amul benn milliard boo xam ne toqal na ko foofu xanaa kay lu toll ci junni juróom-ñeenti téeméer fanweer ak ñaar ci milliard moom président Macky Sall dig na ko digee goo xam ni nag boo maytul France daal di xidee fi njëkkoon rek dinaa leen dinaa leen goo xam ne mës ànd ak mi boo xam ne dañ ne la daanaka ay ñetti weer moo la dese ci bopp réew mi nga taxaw naan askan wi naa leen defal lii naa leen jox lii naa leen tabaxal lii ndax fëgg dënn maa mën koo xam ne sa walis daanaka takk nga ko génn palee ci des yéene kaayub dee média bi naan kay la waroon mooy defub bilan sàll dafa waroon wër dëkk dëkkaat i nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal gi yépp naan leen lii ak lii laa fi def man président ki sàll lii ak lii laa leen tàqaleeg ndóol lii ak lii laa fi def ci wàllu wér-gu-yaram l'observateur naan kon ma ngay suuxe de ci réew mi dey ñi ngi amee jafe-jafe turbine yéen kaay naan kon du foofu kese dafa waroon dem ci gox goxaat yi naan leen bu dee wàllu njàng meeg njàngale mi defal naa leen lii su dee seenug dundin yokku naa ci lii bu dee xëyug ndaw yi man président Macky Sall wàññee naa ko nii bilan la askan wi daal di soxla woon waaye soxlawuñu askan woo xam ne loof nañu lompañ nañu xiif nañu mar nañu seen yaakaar yankeeku na xale yay faatu ci ndox mi askan wi amatu nu fu fajoo daal di faatu gi mel ni tulleeg ci réew mi njàqare daal di juddu ci réew réewum senegal moom sàll naan leen kaay leen may Père nowel maa leen di sowe soxla wunu Père Noël demal loolu la ko askan wi nar a wax nag Le Soleil naan kon juróom-ñaari milliards la nar a def foofee tribune yéen a kaay naan ma mani la per nowel buy digga ay milliards waxtu woo xam ni gaa yaa ngay sukuraat fu koy jëfandikoo luñ koy doyee ak milliar yi ma ni la fan la ko nar a tibbee ak ban lay am ngir daal di ko roof askan woowee tribune naan kon Sall may rek may ba ñu tàqalikoo jafe-jafe yi nekk jamono ji ci réew mi door mën a nag wëlbatikuwaat ci yow l'enquête ko ñee naan sàll ngay fecc moo ne de moom sàll daal la mu def ci réew mi xool na ba seppi tex tex may ree xam ne daal dëgg-dëgg gàttandu na réewum senegal waxtu woowu réew mi moom daanaka tey koom du fi am turbine kaay naan man ville morte moo nar am tey ci ndakaaru nee ñu njaayum carburant amul motocyclette yi du ñu daw ci réew mi wal fu ko di jeene ko wala it ñu am aljuma joo xam ne nar na tàng lool laas naan kon tey jii la ñuy fas ëllëgu Ousmane Sonko ci politique ci réewum senegal le témoin yéene kaay ne ko aljuma tey jii Ousmane Sonko dina xam fu mu mujjee foofee danañ ko doore ca Abuja terale ko ci Ndakaaru yéeni kaay wi naan man niki guddig laylatul xadar na muy fase ëllëgug jullit yi ca déwén ga tey jii noonu la cour suprême di fase ëllëgug Ousmane Sonko ci wàllu politique ci réew mi l'info yéeni kaay naan kontelu ne it mën naa ne Mamadou Lamine Diante ci yéeni kaay bi naan aljuma tey ji du aljuma bu ordinaire aljuma la joo xam ne nag Ousmane Sonko moo ko moom ci réew mi aljuma la joo xam ne démocratie bu senegal moo ko moom ci réew mi mobilisation mënta ñàkk Déthié Fall ne dara bàyyi Ousmane Sonko bokk ci ci élection yi rek may mun a busoo naan askan wi nañu jël seeni responsabilité mooy dëgg turbine yéen kaay naan kon en tout cas fa mu nekk ca kaso ba moom Ousmane Sonko ma woote résistance naan maa ngi wéy di sàkku sama libération ndax nag lin may dundaloo mel ni jaxaan na ma doy na ci réew mi vox populi nan kon en tout cas bëccëgu tey du yomb Dakar dem dikk moom nee na benn réseau dawatul Juan Branco naan dañ koo tere dikk ci réew mi libération yéene kaay nan naan Bassirou Diomaye Faye ñu lankal ko génnam gi Pape Sané daal am retour de parquet Mamadou le point actu naan xam nga xale yi liñ leen war a wax mooy bàyyi leen di risquer seen dund yéen ndaw ñi wax ja kay mooy élection yi tànn leen ña nga xam ne ñoo jara tànn tabb leen ña nga xam ne nag mën na indi coppiteeg joyanti ci réew mi ndax nag kéemtalaay kàttan fas nañ ko yéene bu ngeen nu falee ba ndaw bu ne am occupation mën a moomal boppam mën a demal boppam ba dootul soxlaati lenn loo xam ne dina ko indi jafe-jafe ba muy faat ak bakkanam tribune yéene kaay naan man waxtu woowu waar yu ña ngay toon waa association Sénégal naan leen àq ak yelleefuk doomu aadama buñ ci réew mi wax leen ko xam nga intellectuel doye wuñ ko lii wax ñu wax ci assise nationale yi nag est-ce que réew mépp àndoon te lañ ci assise bi réew moo nekk day am ñu bëgg lii am ñu bañ lii te loolee waa RUR naan leen mooy def charme démocratie turbine yéene kaay naan maan waxtu woowu Cheikh Mamadou Dieng ma ngay xam le ni moom président Macky Sall day parrainage yi daal dina koy soppi daanaka ndik campagne daanaka duggagunu ci campagne électorale bi waaye wutum parrainage baa ngi mel ni tulleeg màlle le mandat moom jibisi juróomi junni téeméer ak juróom-ñaar ci parrain jébbale na ko ngir parluk Amadou Ba mii ci réew mi ngir nag daal di wéy li doxalinu président Macky Sall ci réewum Sénégal Walf Quotidien naan kon juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar kaa ci wopp ji ñu duppee déng daal dinañ koy nemmeeku ci diwaanu Pikine l'Observateur naan kon waxtu woow day ñi nga xam ne ñoo yor service urologie ñi ngi amee jafe-jafe paj ci réew mi seen bloc ba dafa daal di amuk paan ñetti a ngi nii ñu am jafe-jafe ngir opérer yéenekaay bi naan maan ci hôpital Idrissa Pouye la daal di amee docteur